jërëjëf mbokk internet yi bu ngi leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel del ak yéen ci tey jataay bu particulier waaye jataay bu spécial kan laa fi dalal tey Cheikh Tidiane Niass dofu maam Khalifa maa ngi moom yàgg nañu de gars yi waaye ñi koy wooyee nag le malade de Ousmane Sonko juumuñu moom ak Ousmane Sonko ca ba muy metti dama koy wax nii saa su ne bilaax bi tàngee yow rek yaay doomu soxna bi ci soob sa loxo tey dinañu waxtaanee ak moom ay sujet yu waaye dama koy bàyyi mu nuyoo sëriñ bi bu ngi lay nuyu di la ziar ak namm la. asalaamaaleykum wa rahmatullah alaaji buur géwél maa ngi lay fay. di am mbégteeg kontante bi nga ñëwee suñ kër. Mhm. ndax euh, fii dañu la fi présenté fi sa kër la waaye ñun tamit suñ kër la mhm. di ñaan patriote yëpp ñu abonné partagé. Mm-hmm. te xam ne suñ sita suñ kër lañ ñëw. Mm-hmm. waaye tey danañ indi waxtaan bu am importance ci réew mi. Mm-hmm. ndax réew mi jaxasoo na ci côté làmb jaxasoo na. ci côté politique jaxasoo na. ci côté aussi tamit euh, wàllam justice. jaxasoo na. am yu bari yu ñu war a leeral. te xalaatuñ ko leeralee fu dul fii. ndax euh, aw askan bu ñuy suivre benn sit di ci gis seen bopp ci côté yu nekk. day jaadu buñ tollee fu mel ni aussi tamit ñu génn fa leeralal ñu bari. Mm. ñu ngi lay fay buur. sëriñ bi balaa may dugg ci dara. dafa ci sujet bu ma la bëgg a laaj. Mm-hmm. li tax ma la koy laaj. Mm-hmm. ñaari cër la. Mm-hmm. benn bi da nga bokk ci njabootu El Hadj Abdoulaye. sant Niass. beneen bi nga bokk sur les maras les plus engagés. waaye balaa ñoo jëm sujet bi dañuy ànd di seetaani vidéo bi nga xam ne. Mhm. Ousmane Sonko defoon na ko mu nekk ay seere. Mhm. jëmale woon ko sa jëmm bésu mag euh, gàmmu Léona Niassène. Mhm. ñu ànd seetaan vidéo ba dellusiwaat. kon loolu ñu wax ko kilifa gi ne ñëw gi mënutoon ñàkk ndax bés bi jar na ko kër gi jar na ko kilifa yi ngeen doom jar nañ ko. waaye nag rawatina bu ñu yàlla booleek ci njaboot gi ay nit ñoo xam ne gëm naa ni fu ma daanoo ñu daanu fa te sëñ Cheikh mii jiitu ci ñu koy seede ci kanamu ay mbokkam gor la garmi la ku neex àndal la te loolu li ñuy yëngatu lu jafe la léeg-léeg gor la garmi la ku neex ànd ak la te lu mu gis luy defar ma nga ca lu mu gis luy yàq mu teel ci artu te ñu mel ni moom bari nañu mbagam jaa ngi nii toog. mu ngi noonu gars yi sëriñ bi. Mhm. Cheikh Mamadou Mahi. Mhm. dañu koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi xaadimatul umma. amiin yaa rabbi. dafa def benn déclaration ne maa ngi ñaanal sama xarit Ba Jaxate mhm. ak imam Ndaw yàlla tegg natt bi dal seen kaw. am na nag génn. tàkk ci kawam laa ko mën a waxee. ne bi ñuy nangam nangam dëkk bi mu méttee sëriñ bi waxul woon nangam nangam est xam na li Ba Jaxate wax. Euh, defe naa ne wolof dafa naan gën a jege. gën a yey gën mhm. tax ma bëgg a aborder gëw sujet boobu waa buur maa ngi sant yàlla gannaaw témoignage yi jàll ci président Ousmane mhm. jëmale ko si suñ jëmm ju xeebu ji euh, sant yàlla bi ñu yàlla boolee ñu yàgg ànd mhm. njëkk a dem élection yàlla weddi muy mille 2019 ñu retourné waat ngemb waat taxaw waat ba laajaat askan wi seen doole ñu jox ñu ko mu yéen bu diis du mën lu neex yéen bu diis bu métti mais li ëpp importance rek mooy témoignage yi bu ko nit defee ci yow. Mhm. dafay jaadu it boo dëkkee ci fenn foofe nga xam ne ay wax jug na fa. Mhm. nga am noo waxee ak noo expliquer euh, Sénégalais yi. Mhm. li xew leeral ñu comprendre dafa am fi may njëkkee ci wax ji mooy waxoon naa ko ci benn site tey laa ci mujjee wax aussi tamit. dama ko jëmale woon ci président de la république. Bassirou Diomaye Diakhar fay mm. ne ko wax bu jógee pour ñu dimbale ñaari kilifa yi nga xam ni maanaam dañ na danañ jiite mbooloo moo xam ni ñii dañ la toppee ci politique ñii toppee ci diine mm-hmm. te kenn ku ci nekk am responsabilité bu mat sëkk bu mu war a téyal boppam mm-hmm. bi may njëkkee ci Bassirou Diomaye Diakhar fay mooy plan wam wala maanaam doxalinam daf ci bokkoon bu jógee tuuba mm. jógee Tiwaawan dem ci yeneen këru diine yëpp circonstance bi mu yi mu jotee réew mi nekk circonstance yu xat parce que dafa bàyyeekoo kaso dem campagne. jógee campagne ñu ne ko yaa yaa réew mi am na ay soxlay boppam yoo xam ne pas soxlay président mais soxlay boppam yoo xam ne rek mm, waroon na koo régler si biir loolu am ay mbir yu ñëw daanu ci kawam. Mm. Mm, mu am ay président yu mu joxanteeg rendez-vous. muy Gambie muy Mauritanie muy Côte d'Ivoire muy Burkina muy extra extra mm-hmm. yooyu yëpp ñëw daanu ci kawam mu ne su paree ci loolu dafay continuer yeneen këru mm-hmm. kilifa yi jeex na mm-hmm. léegi nag bu fekkee yow maanaam jotoo information boobu da ngay da ngay xaw a gàtt tuuti xel ne pourquoi merci pourquoi pas mu dem Touba dem Tivaouane te demul Lawna demul na demul feneen demul feneen kon loolu ñi ngi ko koy ñi ko koy euh, ñaan moom président de la république ne ko lu mun a def ak lu mu xat na ko bàyyi mu sagal ñu pourquoi pas mu sagal ñu mm. Mm. mooy boo dëkkee kër kilifa diine yu mag yooyu noonu mm. dana am wax yooyu dégg yoo xam ne doom doo ci am tontu parce que ñoom li ñuy wax di ko jëmale ci yow doo ci am tontu parce que lu tege la monsieur Ibrahima sonn na ci faale ko may ma tuuti buur li tax loolu ma wax loolu mooy dafa bokkoon ci programme am nee naa la bu jógee Touba jógee Tiwaawan dem ci yooyu mais am na lu daan waat ci kawam muy dem ci euh, réew yooyu bu fekkee nag ne côté sëriñ sëriñ yi la mhm. ñun ñu jege kilifa diina yi nañ leen dimbali te bañ leen dugal ci loo xam ni maanaam ku ko jàmbaar rek yow doo ci mucc mhm. parce que ñun amuñ lu dul suñ kilifa diine yi nañ leen sakkanal mhm. nañ leen dimbali nañ leen taxaw te bañ leen dugal ci ay guerre personnel pourquoi ma waxee noonu nag mooy Cheikh Mamadou Mahi Ibrahim euh, comme ni ko ñëpp tuddee xaadimul umma dë bu fekkee xaadimul umma la nag ñëpp la am droit ñaanal. dëgg la amul droit ñaanal. ma sàmba wala ma demba mm. lim ñaanal ba jaxate ñaanal ko euh, imam ndaw c'est normal mais réew mi la njëkk ñaanal avant loolu mm. léegi nag ña nga xam ne yàq ak jaxase tax na leen a jóg dagg nañ benn parti bi nga xam ni mm. loolu rek sànni ko may wax aussi ne patriote yi buñ daanu ci pees boo xam ne ñun ñoo ko liggéeyal Sénégal parce que suñ kilifa yi duñ suñ morom suñu kilifa yi ñoom fépp fu réew tàngee ñoom lañu daan gis ñuy wax ci suuf amaana kañ daan wax ak muy président de la République Macky Sall moo daawul dégg te lañ ko daan wax feeñ na tey parce que bu déggoon amaana demin bu ñaaw bii gaayam yi mu bàyyi leen ci réew mi kenn ku ci nekk ñu war laa audit ci problème mu suuf ak problème mu nangam problème mu nangam amaana booba du am parce que bu waxtaan amoon mu rafetal amaana lii yëpp danañ ko xool muy benn senegal mm. muy ñaar ñetteel ba fi may tëjee mooy waxoon naa ko waxaat ko gouvernement bi nañ ñu dimbale ba ñun ñi nga xam ne ñu ngi kër sëriñ si daan leen jàppale daan leen taxaw ngelawaay buñ sëngéem buñ sëgg mm. ngelawaay lañ digoon askan wi dañ ca ne te ñu ngi ca mm. justice bi na toléré Cheikh Tidiane Niass Pastef la nekk tooñ na buur géwél na yoon dal ci kaw Cheikh Tidiane Niass mm-hmm. Cheikh euh, jël na alalu jàmbur bu ma kenn protégé pourquoi pas ma wax lii parce que dañoo oote tey journée boo xam ni dañ ne dañuy joowante justice bi. Mm. bu fekkee dañuy joowante justice bi nag état bu mu sa kenn koo xam ne awul ci siraatal mustaqim mm. bu fekkee nag ne Cheikh Tidiane Niass moo am dëgg ci kaw Bourgéwel. Mm. nañ def li nañ def li yoon wax tant lii mu ngi am nag kenn ku ci nekk dangay gis sa bopp. ci réew ci biir réew mi. Mm-hmm. lii moo nekkoon li may wax ci côté li xew euh, suñ kër. muy kër Mame El Hadj Abdoulaye Niass muy Médina Baye. xew. lew na xew Touba xew feneen xew feneen mm. mooy président Bassirou Diomaye Diakhar fay sagal ñu lépp looy def nga bàyyi ko nga continuer sa tournée religieux bi mm. nga nuyu ji ñëpp kenn ku ci nekk dal ñun ñu dal pourquoi pas ñun ñu dal parce que ñun dañoo bëgg Ousmane bëgg bëgg bëgg ba amuñ ci moom sago mm-hmm. te nit su la bëggee ba amul ceew sago bu toogee di dégg lu ko neexut du mën a tont dëgg la te li ñuy neex lenn kese la mm. mooy nga continuer loolu donte newoon nañ bu tabaski bi passé noonu nga koy continuer ci yeneen kër sëriñ si mm. mais na gaaw urgent parce que ab urgent moom mm. yàqkat dana xool fu muy duggee pour yàq mm. yéen ñuy dimbale ba bu yàqkat yi dugg mm-hmm. sëñ bi suivre euh, nga maa ngi am lu ma ci maa ngi am lu ma ciy dégg noo ko mooy ne tegu ci yoon rek mu tegoo ci yoon moom du Doro Gueye kese bëri na ay politiciens yu nekk Kaolack yoo xam ne <laughs> ay gone yu ndaw lañ yoo xam ne boo xoolee ci gannaaw tuuti sept ans ci gannaaw dañ doon ambi la tey ñu la exemple am nga kër fii am ko këwoon am ko nangam tabax kër goo xam ne L plus 6 la yaa ngi dégg xëyoo gontoo extra dorogay mi même chose ay euh, caaxaan kat nga daan dégg ñu koy tagg ak ay nag xam nga c'est-à-dire buur am nañ waxtaan mhm. am réew bu ñu ko bëggee defar mhm. buñ ko defar ci li askan wi bokk nga ñëw toog ci yow kenn mais c'est est-ce que du cabale aussi est-ce que du cabale maanaam euh, rëbb dëmm quoi maanaam euh, gaa ñi nekkatuñ fi amatuñu kàttal ñun ñoo fi toog <laughs> nañu nañu fay seen kaw. alaaji buur wàllu loolu. alaaji buur. Hmm. Bassirou Diomaye mii ma xam du genre boobu euh, xam nga da ma laaj affaire Doro Gueye ma ne la am na lu ma ci xam. chèque hmm. boo xam ne un milliard la oh supprimé naa ko léegi mi ngi sama téléphone. un milliard chèque un milliard. Hmm. un milliard fan nga ko mës a dégg. mosuma ko dégg mosuma ko gisee. cest maanaam li ma wax léegi xam nga li ma njëkkee dama commencé sama bopp ne bu dee Cheikh Tidiane Niass moo tooñ na yar bi dal ci kawam. kon buñ dugg ci cadre est-ce que lu mu nekkoon APR la lu mu nekkoon feeg lu mu nekkoon fa ñoom ci seen biir ñoo doon xuloo ba wax ko far damal ci TikTok bi ci gannaaw ñoom ci seen biir ñoo doon xuloo ba far wax ko ñam daan def et pourtant ñoo ko yàqal ñoo ko dugal ci détails yii nii yii nii yii nii moo tax toujours booy jëflante jëflante jëflanteel ak borom xel jëflanteel ak borom sutura jëflanteel ak koo xam ne lu métti métti dana xalaat benn jour jot na nga taxawu ko dërëm ci alalam mm. mais yow tey boo meree mën ngaa tukkal àdduna wax loo xam ne nii bu ëllëgee jàpp nga ne juge ak magistrat ak ñi la war a plainte ji capté nañ vidéo yëpp teg ko buñ demee ci juge bi plainte indi vidéo yooyu yëpp teg ko mënatoo weddi dara kon donte politicien nga laa wax xamal fi ngay teg sa tànk parce que jamono bii ki nga jël sa alal di ko ko jox kooku mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi wër paaka bi mu bu mu la rendee ëllëg mm. te bu lay rendi du jaayis parce que dafa xam fi mu lay jaar mu ngi noonu di lu am solo ah. euh, dafay koo xam ni saa bu ñu dajeeg moom surtout ci gars yi gën a xamee mooy ku am engagement la ak détermination rawatina bu réew mi soxlaa sëriñ bi man xam naa say mbir. Mhm. ci butéel yi laay njëkkee. Mhm. soo ko wàcc ci sunguf yi. Mhm. jaar ci pomaat yi. ñëw ci parfum yi ndax ñaari njëriñ jaam yàlla yi dong la. alaaji buur li tax waxtaan ak yow di neex. xaayaan ku dégg séeréer. man damaa dégg sëriñ bi. te man dama gis su ma la cuqee ci ci yi rek da ma ne ay waay lu waay mënul neexul. barke rasulilah. <laughs> yàlla xam nga dafa am lu. tëj sëriñ su bari. Mhm. muy faj impuissance sexuelle. foofu laay jiite xam nga tax mu njëkkee fa. Mhm. parce que Sénégal bu fekkee exemple góor ñi cent la. Mhm. jàppal na cinquante yëpp ñi ci ëpp dañoo tële. mënatuñoo mënatuñoo maanaam jëflante ak seen soxna dix minutes jëm kaw. satisfaire jigéen satisfaire. xam nga lu waral loolu. parce que bion yi ñuy lekk. yi ñuy jëfandikoo wàcc suñu ànd aussi tamit. alaaji buur bu njëkk da daan gis mag ñi bu daan naan. maanaam pot yu mag yooyu pot potu ndikeel yu mag yooyu ñu daan naanee. ndaa moom lañ daan potu ko. amatul li ñuy wax ndaa boo duggee ci kër. gisatoo ko li ñuy wax añ maanaam nañ teg teg boolu añ bi. boolu njaboot boolu njaboot ñëpp sukku. Mm-hmm. amatul gisatoo ko. Mm-hmm. waaye yooyu nag bu fekkee dafa raaf maanaam la doon doxal loola day mujj raafaale ànd ak loola. dëgg la bu njëkk maa koy fàttaliku bu ma dugg boo duggaan maanaam néeg góor gi. wala sa néeg maam da daan gis njàqalu mag lu ñu teg loo xam ne nii ay ay reene ki nangam lañ ciy xooj boo jógee suba teel da nga ciy naan bala ngaa génn kër gi pour fooy dañ lay force pour nga dem naan pour nga dem mm-hmm. naan ci mm-hmm. loolu amatul olof njaay nag na ko wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom est ce que xam nga ne tubaab lu muy aay aay aay aay mënul faj impuissance sexuelle xam nga loolu. dëgg la lim ci man mooy jox lay comprimé comprimé yi endur la. Mhm. temps bi nga soxla bu temps bi jeexee boo jot sa bopp da ngay tëdd nelaw wala sa bopp bi di métti. dëgg la bu yàggee daf lay dafay def arrêt de cardiaque muy tëf tëfi. parce que xol bi li nga koy li nga koy yen moom la atunu. waaye dëgg la sëñ bi maa xam li ngay wax. gaa yi jaay ba ci garabu kàtt nii yenn sëriñ ci koy jaay. voilà ñi may réclamer loolu lañ may réclamer buur su ma naanee garab gi damay dafay jambaaje sama xol. ku la ko wax boo ko gisee nee ko nee ko demoo ca gatsa gatsa bi. gatsa gatsa bee nekk bii la patron tuddee gatsa gatsa ñaari at mars 2021 mm. laa trouvé garab gii muy jamono coow Ousmane Sonko Adji Sarr mars 2021 ba 2024 muy 4 ans. Mm. gis nga kii alaaji maa ngi lay bit kitaabul ci yàlla ne boo ci jëlee benn kaasu ataaya romb ko loola dal du man parce que nag lem neex na waaye du dund boo naree jël maanaam bu ne la doo jot sa bopp rek nga jël ñaari kaas ñetti kaas di nga bëgg a jot sa bopp doo mën a jot sa bopp te góor nag lu mu mën a am it buy jëflante te jotul boppam zéro la koy dikkee. barke alxuraanul karim kii képp ku koy jë jël jëfandikoo ko kenn du leer sa kër man ñaari soxna laa am kenn ki 19 ans kenn ki 21 a maa ngi wax ci kaw it. te maa ngi wax ci kaw laa la wax kay olof laa la wax dama lew nañu seen. dëgg naa la kii képp ku mais nag kii nag du traité feebar bi nay leer kii ki nga xam ni dafa jugee bitim réew wala mu jógee ci voyage ñëw ñu jox ko as gone wala mu yor jabaram mu koy yeb moom pour loolu la maanaam pour naan jëflante mu réagir da ngay jëflante 30 minutes. Hmm. kii pour loolu kese la mais am na koo xam ne def ne ma alaaji buur. Hmm. bii de baax na waaye man traité ko completement laa indi boobu ma mel da ngay jël kàddu kër gi. kaddu kër man maa yor sama gaabu. quoi kàddu kër gi dafa am kilifa gu mag gu ne ci réew mi. Hmm. dem na fu ne wérut yàlla mi dara teewul ñu boole ñu bi mu ñëwee fii. ñu jëflante ma jox ko traitement wu kaddu kër gi. bi ma ko joxee traitement bi mu mu jël ko ni ma ko waxee ca ëllëg sa sa gannaaw ëllëg sa ñu dajee man ak moom mu ñu mu ñëw fii mu ne ma sëñ Cheikh ma ne ko naa mu ne ma kii nu mu tudd ma ne ko ngóora mu ne ma dindal yëpp tuddee ko kàddu kër gi ma ne tax ma góor mën naa yor ay milliards ndekk nekk te du am kàddu ci biir kër mu ne ma waaye ma ko joxee sant naa yàlla tuddee ko kàddu kër gi moo moo tax ma indi slogan kàddu kër gi waaye li ma jaaxal sëñ Cheikh hmm? dañ ci am version sunguf waaw am ci version réelle pourquoi pas parce que parce que ndox du hmm. dugg avion waaw dëgg la bu fekkee ndox du dugg avion nag te lii day dugg avion daf ñuy dimbale bu ñu koy jox moodu moodu yu nekk bitim réew ñu man leen a jox bii pour bu yegsee ñu wax leen ni ñu koy utiliser ba mu nekk ndox. sëriñ bii bu guddee maanaam bu gàttee dana gudd. alaaji may ma tuuti booba danaa ci ñëw bii mooy mooy borom 30 minutes mooy maanaam bii boo ko jëlee. Hmm. mooy tax nga def 30 minutes. nga tegaat ci bii. jëlal ma ko bii moom mooy bu gàttee daf koy guddal. Hmm. bu tuutee daf koy réyal. bu nooyee da koy dëgëral da koy bu fekkee ñaar yi la nga tegaat ci sunguf bii lii mooy kàddu kër gi ñett yi mooy traitement bi moom lañ lay joxandoor. kenn du la yëpp ci kër xam nga bii lu muy jëriñ góor sëy na 10 ans topp jabaram naan ko da ngaa jaasir. demal nga faju ji. te mm. fekk moom moo war a faju ji parce que sperme bi baaxul. baaxul bu duggee bala ko walax jaan yi këf. dafay dee. Mm. te loolu góor gu koy def en général jabaram du denc feebar. parce que li muy soxla ci énergie ci ferñeent yi dugg ci moom pour mu mën a am yaram pour mu mën a nangam pour mu mën a nangam. pour ndaw si mën a belli rek. jeex na du ko am. Mhm. toujours nag loolu bu duggee ba ci ndaw si nag ndaw si day mujj nekk feebar parce loolu dafay nekk maladie. Mhm. moo tax ñett yii bu ñu la ko joxee du soxlaati kenn dalay ci sa biir kër. benn ba ma taxee ba tey gisoo ma yëg nga tuuma. koy taxawloo te maa ngi ñàkk tooy xet nag teg ci. <laughs> na lii sa secret te te teg si am na lu gën a mhm. muy foor foor garab gii lañ ko njëkk jox ci àdduna mu naan ko kii mooy premier médicament ci àdduna bi yëpp aadama alayhi salaam ba mu duggee àjjana yàlla dane ko bu lekk garab gi awaa ne ko iblis na ko boo ko lekkee nekk yàlla xam nga nag jigéen lu man a am nekk nekk nguuru ko ko gënal mm. dama laaj ma dem fay mais nag bi aadama wàccee àdduna bi nii yàlla daf ko wàcce Inde mm. mu wàcc ci kaw ay doj ay xeer mm. wàccaale ak biir buy metti parce que garab googa mu lekkoon maanaam boo ko lekkee day da saf dem toilette te àjjana amul duus hmm. yàlla wàcce ko ci àdduna bi mu ngi ko wàcc nag biir bi métti jibril feeñu ko ne ko tojal ci xeer bii nga tëdd nga def ko ci ndox nga naan ko dana sedd mu def ko mu sedd boo demee li ñuy wax ñun suñu ressource naturelle mooy am nañ phosphate am nañ gaz am nañ nangam hmm. boo demee indi lee lii mooy seen ressource naturelle lii benn réew lañ ci collaboration daan ci liir ko mi ngi noonu feebar yi muy ngi nii kii dafay faj ñaar fukki feebar ak juróom vingt cinq maladies forot lay duggee fii ci Sénégal. fibromyalgie gastrique ah, asthme hémorroïde perte de poids ah maladie des ongles faiblesse sexuelle diabète mal des yeux typhoïde constipation la mais. cancer de cœur cancer de foie kii vingt cinq maladies lay faj ñaar fukki feebar ak juróom. mais bi lii yéeme naa. doo dem ci benn sëriñ fekk ko fa nag. maa parce que yàlla daf ñu dimbale mooy dañu am ñu ñuy jëflanteeg sama kàddu kër gi dafa am benn indo bu fi ñëwoon ma jox ko mu gis ci résultat total. Mhm. mu ne ma man dama bëgg ñuy jë liggéey man ak yow. ma lay jox garab yoo xam ne nii doo ko jox nit mukk mu ne la li ma jox nii baaxul mais yow tamit dama bëgg maanaam kàddu kër gi nga ma ci defal quantité yi ma soxla su ma ñëwee nga ma koy jox man tamit ma koy yóbbu ind sëñ li nga doon rek doy na. waxuma la billaahi wallaahi watallaahi mm. kii képp koo xam ne yor nga feebar ñaar fukki feebar ak juróom yu nekk ci doomu aadama di si maanaam di di dox ci sa deret da koy saafara immédiatement li xeer mais boo koy dugal ci ndox mu tàng muy seey. moog sunguf si ñoo ànd. moog sunguf si ñooy ànd. niñ koy defee niñ niñ koy defee nag ku ma ko laaj ma wax la ko képp cancer ñu ne la mënoo wér kala ko wax waxul dëgg ñëwal maa farat naa maa farat naa fii kitaabin min la yàlla wax yàlla nee na dëxëñ naa lépp ci alxuraan soo ko gëmee rek sëñ bi sëñ Fallou Mbacke bu nekkee doomi si Amadou Bamba xaadimu rasul jaamu yàlla ba yàlla may ko mu hmm. fekk nit ku dee mu raay ko mu jub buñ ne la buñ ne la buñ ne la yàlla la mu doon maye mi ngi fi ba tey waroo ko mën a gëm ah, kay ndax yàlla jugu fi ma jàll ci beneen feebar ñëw ñëw ñu waxtu ñëw ñu wax ci tuuti ci xam-xam doxalal sëriñ bi ki nga xam ne dafa bëgg kawar maanaam sikkiñ wala yu mel noonu man nag bi mel ni sonko bi rek baax na bëgguma ko sonko boy bi jeex na tàkk bii la <laughs> ki nga xam ne saytaane da koo dab mooy rab muy dëmm muy jinne muy nooxoor muy làmmiñ bu bon wala wala gi wala bët wala yu mel noone wala yéene innamal ahmaalu binniyaatin mm-hmm. kooku dañ ko defara sunguf bii nga xam ne juróom-ñaari xay yu sax ci armeel yu bokkut moom lañ ko dëxëñi ak douze mille tabat yadaa kii képp ku koy sangoo di ci suulu képp ku repp rek moo lay laal moom lañ def nii ci pot bi nga koy gis moom tamit mm-hmm. bu fekkee koo xam ne la dafa jabet spécial kii mooy feebaru ja mooy mooy traité jabet completement type 1 type 2. bu mu mën doon da koy traité na dem ba naan dañu dagg tànk bi wala dañuy dagg loxo bi wa ilaa dañ lay moytuloo yu mel nii ak ne bu ko jëfandikoo traitement bi ni ñu ko ko waxee incha allah bu neexee yàlla yàlla dina ko saafara bu fekkee koo xam ne dafa bëgg maanaam bu fekkee lu dem ci wàllu tubaab yi la buur mm-hmm. ñoom dañuy bëgg wàllu ngóor a mais nag duñ bëgg naan ma ne la bii moom lañ liggéey ci liquide bi nga xam ne da nga koy diw ci kaw bopp awra bi rek sëy danga mën a sëy quinze minutes vingt minutes te amul info secondaire moom kii barke alxuraanu karim te daf koy dëgëral man lu may wax lu ne rek sama kër laa ne aw ma garde corps aw ma garde ñi nee naa la buur ku mën a tenir Macky Sall ku mën a tenir Macky Sall deux mille dix neuf ba deux mille vingt trois mm. mënu laa tëj mm. da ngaa toog boo toogutoon ci lu rek daw nga bu yàgg bu fekkee ki nga xam ne la dafa émorite wala ballottement wala ndoxu siti kii moom moo moom tamit bu fekkee koo xam ne la nag dafa yor lu ñuy wax cataracte mooy bët yu neexut wala ngulukum wala bët yu xonq ak yooyu mm. boobu kii moo koy traité mm. ma tëjee ci bi nga xam ne nii moom mooy moom mooy toj dëkk bi mooy parfum bi kii moom la ay ooye parfum Youssouf kii maa ngi ko liggéey ci xaatim bu ñuy wax wàccu Youssouf mooy kanamu yonentu yàlla Youssouf mm. ak taaru baak mbég ma kii képp koo xam ne moo moodu moom jaratuñ may taxatuñ may wax mais ki ne ci réew mi wala ku ne bitim réew da nga koy tëj jël karaw tubaab def ci di ko piisoo fépp fu nit ku weex nekk dana la bëgg jaahiran wa baatinan buur damaa bëggoon nga laaj ma ci li maanaam li maanaam li li tën ñëpp muy am am xaalis mais pas yu ndaw yi ni feebar yu ndaw yi waa xam nga xaalis nag dafay loo xam ne guddi gi jamono ji sax ñëpp koy wër man léeg gaa yi nekk ci biti mhm. liñ may njëkk jooytu mhm. muy naa fi fukki at mhm. moo ma am naa la ko ci yàlla ne lay wax loolu moo ko tey xam na kër yu baax yi moom moo ko tey jëm ci kër yu baax waaw man maanaam nit naka ngay ñëwee rek jël sa soxla yëpp gaar ko sëriñ bi mm. ba pare retourné ne dana faj sa soxla ab sëriñ li ci jiitu mooy nga man li ñuy wax consultation seet. waaw seet gu leer. sëriñ boo ñëwee bala nga wax moom dara. maa ngi fi looy seetee nangam laa seetee am sama tur a ngi ne sama tur yaay xool ma bu ko wax dara sa bopp. faatul buyuti min abwaabi. looy def nag awet ci buntu mais bu fekkee ne da ñëw wax ko soxla ba pare la fay ma temps yaa ko yombale sa bopp. ah mais sëriñ yi ñu ci dañuy sous-traité seet de. sous-traité mooy jox naa. waaw buur jox na ma. waaw ma woo dimbali ma vocal ma vocal. ma ne ma ne buur. waat naa ko ci yàlla billaahi lazi laa ilaha illa wa xayruhu ñi ma seetal ci àdduna ku ma ci ma seetal la may wax mooy doon nit man ramli laay seetal ramli mhm. su ma tombeet ñett boole tombaat boole tombaat boole xool bunt bi mu génn ne lii la mbindeef muy dox ci kaw su mën la ko tere mën mën laa wax ne lii lu dëgg parce que man dama lay wax fa nga passé wax la fi nga toll wax la fa nga jëm lii kese mooy seet ba pare wax la solution ya boo bëggee bismillah boo bëggul xoolil keneen man nag man shaa fal yuhmin wa man mhm. ba mu waxee bu ma ñii bu ñu gëmee baax na bu ñu gëmul ñoo xam mm-hmm. man sama ñaan neexalu ma ci mbindeef mu yàlla bind parce que li tax neexalu ci mbindeef mu yàlla bind mooy li ma war a am am naa ko ba pare dëgg la waaye nag bu fekkee ñun ñi yàlla xamal ñëwuñ dimbale dimbale ñi yàq tool bi tool bi day yàqu waaw te tool bi sax gi bëgg a yàqu ma ne yow boo yow buur li nga xam boo ñëwoon toog ci na dama dama koo xam xam kenn ku ci nekk sa maam fa mu juddoo ak nangam ak nangam waaye nag sama yoon nekku damay tëju sama néeg kan moo lay xam da ngay ñëw pour dimbale yàqkat maam mbole dooyu ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci télé yeeg yenn séddi mm. leen ne leen li ma xam dama koy génn pour nit ñi xam ko waaye yéen tamit li ngeen yàq na dëj waay dëgg la waay sëriñ bi li lii leen mooy sëriñ mais am am ku ci jëflanteeg man man bala ngaa jëflanteeg man bu la neexee bu ma wax dara ci sa soxla nee ma nangam laa tudd nangam mooy sama turu nday nga ma billaahi la si laa ilaha illaa bu ma waxee ak yow ba pare la ngay njëkk a te bu ma jëflante ak yow nga am xaalis. alaaji buur nee naa la xaalis a gën a yomb jox ko doomu aadama. waaw dëgg la dëgg la de dëgg la de. barke alxuraanul karim. dëgg la xaalis jox ko doomu aadama moo gën a yomb mais li ëpp importance ci adduna mooy nga jëflante ki la mën a defar li nga bëgg. protection am na. kaaraange nee naa la nee naa la man damaa tenir Macky Sall 2019. ba 2023 tëj na ku ne te mënumaa tëj te demal ci internet bi. waay dëgg la man damaa fekkee maa fekkee bakkan lay laaj. ma ne El Hadj Abdoulaye Niass mooy sama maam. taawam bi xalifa ñes xalifa hmm. ñes jur alaaji babacar deuxième xalifa général ci kaw suuf alaaji sama maam dem sañ ci jaaga sëñ saalu sañ ci xelxom ñuy xarit benn bakkan hmm. sama maam boo duggee lew na li ñu koy dàkkantalee mooy alaaji babacar borom jinne yi hmm. loolu lañ koy dàkkantalee kon ñun kaaraanga dañ cee toog mais gannaaw boo waxee kaaraange ba pare li ëpp importance ci kaaraange ëpp importance ci politicien ak waxkat mooy bayre man ke saf ñëpp neex man man man de maa ngi sant yàlla kenn du ne ndax kii mooy nangam. déedéet boo defee titre boo ñu ne ma nga ne. waaye nag damay defalaate bayre boo duggee ci tànt ñu naan kii mooy kan. damay defalaate wërsëg boo génnee da ngay maanaam da ngay upp taxi. Hmm. damay defalaate kaaraange bët bu set yaa ngi yoon tribunal. <laughs> te naab sëriñ la. loolu nag sëñ bi ki leen xool leen ñi leen koy wax ak ki koy wax buur. yaa ngi merci ginnaaw suba yaa ngi yaa ngi fii ma dëkk ci parcelle def naa fa ñetti at géejawaay en face kër sëñ Muntaxa Basiru benn at ma diggee Dakar ba léegi ñëw naa tuxuwu ma randalu ma aw ma garde ñee aw ma safoor ci njub waaye njuba neex booy dox ci njub maanaam amul lenn lu lay tra mais li ëpp li gën a bon ci àdduna mooy mooy jubadi booy dox di maskaw di takk di nangam maa fay sa téléphone pour lan ah, boo ma ooyee jot ma boo ma message ma tontu la so heure bu ma neex laay génn marché bi bu ma fa amee soxla maay doxal sama bopp mu jige xale yi ci kër gi dañ naan sëñ boo xamante yéen ma ne leen lu may làqatu

alaaji buur maa gën a bég ñu ngi ñaan ci barke alaaji Abdoulaye yàlla dëgëral la amin yaa rabbi ci barke alaaji Abdoulaye amin yaa rabbi sàmm la amin dañ ñaan lu waaye donn mu dëgër li nga donn rek doyoon na alaaji buur mhm. la ma daan wax bu may tëj laay wax bu may tëj mhm. boo yoroon ay milliards di daagu di ñëw ci man bu sa aajo nar a faju na la yàlla lëndëmal booba nga xam boo yoree dërëm sa aajo nar a fajoo ci man yàlla na yàlla jàppale ba nga ubbi site bi jàkkaarloog man ngir ñëw ci man gàccaay docteur mooy xamul dara ñam opéré woon dee nañ gàccaay sëriñ mooy xamul dara moo ngi ñëpp a yem mm. moo ngi ñëpp a yem nag sëriñ bu ñu koy wax nga toog di xoole war ngaa dem jàngi xam-xam dëgg la yéen ñi nekk ci internet bi yéen na gone yeeg yéen nag maam li état war a njëkk def ma koy ñaan ma mm. ñaanoon naa ko jamono Macky Sall amuñ ko mm. ñaanaat naa ko fii nañ dem jam ñaajo ñu rëdd fa àll bu yaatu mbooleem koo xam ne nee nga sëriñ nga dangay ngay faj médecine ñu indile la fa la nga xam muy sa baaxu maam muy ñaan ñu jox la malaat ne la xoolal traité ko traité ko boo ko mënta traité ñu jël ñuus la ci kaso lii heure bu ñu ko defee rek sëriñ si wàññeeku. sëriñ kaso bi dina fees. barke Cheikh naa Ahmad Tidiane Serif may première nañ ma bind. Pastef laa boo ko nëbbatuuma may première nañ ma bind. da ngay rab man nga ko waaw kii dafa def nañ la ko indil ñaata fan nga koy faj 10 jours may nañ la un mois un mois boobu wérut ñu delloo ñu sa si kaso ga jël dafa yóbbul keneen loolu maanaam examen boobu fekk amul rek bi xam ni man ak ñu mënul. billaahi wallaahi wa ñi ñëpp di wax ni yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm defal Bassirou Diomaye Diakhar Faye jàmm defal ko euh, premier ministre président Ousmane Sonko ak mbooleem gouvernement bi képp koo xam ne ni yéen nga leen échec yàlla nga échec képp ku leen yéen a réussir yàlla na yàlla réussir say mbir réew ñoo ko bokk ci may tëjee rek mooy wax euh, coow la dëgër gi maa ngi koy dégg mbëri booloo leen nekk benn dof yi sax ñu ngi boole ci ci mbedd mi di ànd léegi rek seen HBK vingt cinq millions la lijjanti ñëw indil ko Lac de Guiers pour jàppale ko Bécaye Mbaye moo tax bennoo rek am solo. Mm-hmm. ñi bon ñi taxawaalukat yi dof yi ñi ngi bennoo bu ngeen bennoo woon ñaata mbër la ñuy dégg naan fay nañ ko cent millions quatre-vingt millions nanga man sama nekkul ci làmb bëgguma ci woon a wax waaye nag. Mm-hmm. la dëgg dafa nekk nit koo xam ne ak yaru rek laa xam ci moom. Mm-hmm. ndog nag du dañ ci doomu aadama. yàlla na ko yàlla génne ci ndog-ndog yi yàlla taxawu ko ci barke alxuraan maa ngi ñaan képp ku ci mën a def sa dërëm def ko ci mu génn foofa mm-hmm. parce que bu dul dara mas naa taxawal Sénégal benn fan mm-hmm. maanaam euh, liggéeyal Sénégal benn fan taxaw bégloo benn doomu Sénégal benn fan kon fee mu nekk du këram na mbëri booloo génne ko fa te xam ne ku ne mën a laa dab jërë ngeen jëf